jéem nañu laa génn réew mi mënuñu ci yow dara ñu jéem laa nëbb mënuñu ci yow dara léegi nag nee nañu dañu lay toppandoo <laughs> waaye dama leen ne gis nga 9 kilos lóbbu gas maam jaar bi mën nga koo rey de waaye nag piir bi moom fii rek nga ko mën a amee lóbbu gas maam jaara ndax secret bi ñu taxañ ci biir fii rek la am mi ngi nii dal di kóor gaa ngi original baa ngi bu leen kenn nax nag 9 kilos bari na nag te bokkut boo leen bëggee bu baax loo bëggaas maam jaara rek ku ko am nag d'origine bi nag fii moom a vent neuf kilo maam jaara yaa moom a vent jigéen ñi ci dul bëggee goût bu siis moom mere stress boo koy seet si bett kaa ci ren. yow mosal ku ko mos tàkkamtiku variété pël sama dàkkara. teraanga pël

الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان تقرأ بها القرآن ñu santee yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo leen di nuyu ci ngën gi nuyu muy asalaamu aleykum wa rahmatullah wa di dalal suñu ustaaz bi nga xam ni suñu ustaaz Alioune Sall macha allah mu yàgg ñu koo defal nag ñu ci am mbégte ñuy ñaan yàlla nag mu jaar fam daan jaar wala mu dàq ko ñoo lay dalal bu baax a baax di la bisimila di la masaw coono ma ñëw ci taalif taalif waa réew mi di waa Sénégal waa réew mi di waa Sénégal nañu am jom joow suñu gaal lii defar réewum Sénégal lépp ngi ci biir alquran waajur yi nañu yar ndaw ñi nun waajur yi nañu yar doom yi ñu dem jàngi ji alquraan alquraan mooy suñu téere alquraan mooy suñu discours alquraan mooy suñu wéttal nañu ngoy te bañ a caaxaan assalaamu aleykum wa rahmatullahi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 الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإن الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى أني آتيكم منها بخبس منها بخبس أو أجد على النار هدى فلما أطاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى ونخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكادوخ فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل أطلع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرد أخرى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi barakaatu yàlla na nu yàlla may dund ko barkeel yàlla nañ fekki déwén te weesu ko toogoon nañ fi daaw ñaanoon yàlla fekke ren ñi fekke ren ci ñun ñoo ëpp ñi ko fekkiwut ñu ko fekk woon daaw te wóote ko ren ñu ci tukki yàlla nañu bisi jàmm ca feebar yàlla na borom bi saafara leen ca faatu yàlla na borom bi yërëm leen ñëwaat nañ beneen yoon di jéem a tontu benn laaj bu jóge ci daara ji ba noppi jëm ci daara ji laaj bi nag laaj bu rëy la ñépp war di ko laaj kañ laa sañ wax ne ab julit laa incha allah bu nu toppee tomb yi ba noppi jombul ku na ci ñun mën na wax ne man kay kon ndekete ab jullit la walla kenn ne a man kat ndekete am na lu ma dese walla kenn ne a man kay ndekete tàmbalee guma ñett ñooñu lay doon incha allah bu nu jullee ba noppi jéem cee ñëw yal na yàlla boole sàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bañ sante yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu wërsëgal ñu fekkee bis bi tey ñu ngi tàmbali waxtaan yi oustaz def na muqaddimam mu ngi dugg ci thème bi laata muy dugg ci thème bi ñu indi ñaar ci magu daara yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo waral xafla bi tey ñu jàngal ñu alquranul karim ñu ngi woo mbisaan ak meer njaay ñu jege si incha allah laata ustaas di tàmbali ñu jàng jukki ci lenatu alquranul karim meer njaay ak mbisaan nañ jege si suñu paree incha allah ñu jox ustaas malik mu ubbil ustaas incha allah mu tàmbali muy thème boo xam ne thème bu méngoog jamono la ndax ñetti point yi mu wax yu am solo la loo gis am na finition finition finition wu waxtaan wi tey résultat la war a jut résultat bi imma yow nga jàpp ne ah lañ doon traité tey yaa ngi ci biir wala bopp nekk goo ci wala bopp commencé ko loolu lu am solo la lool moo tax thème bi muy thème boo xam ne jamono ju ne war nañ ko mën a di waxtaane kon incha allah ñu jox maire Njaay mu jàngal ñu suratu duha Oustaz Kebe jege sil la budd jege sil Oustaz Kebe bisaan Oustaz nga ñaanal ñu sunu mag ñi magum daara yi ñoo xam dañoo toll ci as bi ne dañuy nabbi nabbi jàng alquranul karim leen di ñaan ngeen ñaana leen yàlla subhanahu wa taala yàlla sax leen ci alquranul karim kon ñu jox meer Njaay su pare mbisaan su paree incha allah oustaz Malick tijji li nga xamante ne mooy jotaay wi tijji ko oustaz Alioune Sall mu daal di commencé ci waxtaan wi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax salaamaaleykum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 walal aaxiratu xayrul laka minal uulaa wala sawfa yuxtiika rabbuka fatardoo alam yajidika yatiiman fa aawaa wa wajadaka doolan fa hëdaa wa wajadaka ailan fa ahna fa ammal yatima fala taqhar wa amma saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis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 kazalika yuuxi ilayka wa ila allazina min qablika allahu alazizul hakim lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa huwa al aliyul azim takaadu samaawaatu yatafattarna min fawqihin wal malaa'ikatu yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruuna liman fil ard alaa inna allaha huwal ghafuurur rahiim wallaziina اتخذوا من دونه أولياء الله أولياء الله حفيظ عليه وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريح في الجنة وفريح في السعير ولو شاء الله لجعل والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير صدق الله العظيم وبلغ الرسول المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين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 علم إنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم message bii ñuy waaj jàllale ñëwul ñoon dow ñëw jëmu gaal ñoom ñun réew min gaal lépp ngi ci biir alquran alquran ñu jàngal ndaw ñuy ñun waajur yi nañu jaar ndaw ñi ñu dem jàngi alquran alquran mooy suñu téere alquran mooy suñu discours alquran mooy suñu wétal nañu jëmit te bay caaxaan ñëw leen ñu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yal na nu yàlla may dund gu barkeel ni nga am mbégte lool ci dellusiwaat ci pénc mi dellusiwaat ci penc mi ndax ñëwoon nañ fi ñëwaat fi yàlla nañ fi ñëwaat ngeen ñëwaat fi lii soxna yu doon def ëpp naa xeeb ndax doomu aadama lu laggi ciw lemmiñam buy faatu moom lay wax lépp loo xam ne ragal nga booy faatu di ko wax bul di ko waxantoo ku nekk ci di nab nabee ko jàngal xuraan yàlla mën na laa baaxi ba boo àggee ci sa fan yu mujj nga ne ci alxuraan kon nag li ngeen doon yëkkati léegi ku xam fi mu tege doo ko xeeb nga lool ci soxna suñ fi jàngal Wadduha ak yi fi jaar yëpp di nuyu nag sunu njaati gi ci koñ bi soxna Fat Njaay Seck nekk DG commercial ci Ali Imran TV nekk sunu bunt ci yéen tuuti kon ma ne këram lan yendu ndax bañ a tardé a ngi ndokkeel ñi ñu ndeyale bis bi ak ñi ñu bàyyile bis bi di ndokkeel ñi nga xam ne ñoom it ay gan lañ fi di ndokkeel dëkk yi di nuyu sunu doom Bintu Suleymaan ñaan ko yàlla mu yokk ko wér ak barke sunu tombu ren ab laaj la ci lay jéem tontu mooy kañ laa sañ wax ne ab jullit laa su ma indee tomb yi maa ngi defe ne su ma jeexalee ku ci na ci ñun dana mën a wax ne ah man kay ndekete ab jullit laa am ku mën a wax ne ah man de dese naa peut-être am ku mën a wax ne man ndekete tàmbalee ndax bokk ci dara du yem ci bokk bokkulu walla bokk naa bu dee daayira bu dee association bu dee tarixa bu dee entreprise walla société lu ci nekk day am lu la cay boole ngay sàmmoonteeg yooyu la ca boole li feeg yaa ngi sàmmoonteeg moom yaa ngi continuer bokk àdduna jenn diine fi nekk lislaam la tudd inna diina inda llaahi al islaam wa man yabtaxi xayra al islaami falan yuqbala minhu wa fi l min al xaasirin sunu borom ma ko wax kon nit ki war laaj boppam ndax man ab julit laa balaa ngay nekk ab jullit daa am yoo xam ne moom ngay doon danaa koy faral di fàttali léeg-léeg dafa amoon genn gone gu jigéen ab tubaab ne da koo nopp gone gu jigéen nga ne ko ñun ay jullit lañ sañu ñoo sëyëg ku dul jullit tubaab bi ne ko waaw kon comme man dama la bëgg li nga nekk sawar naa cee nekk waaye danga may bàyyi kon fii ak at jàpp ñaari at ma gëstu sa diine ji su ma convaincre dal sama xel ma dugg ci takk la su dalul sama xel ma bàyyi la nga dem ma dem mu wuti keneen tubaab ba daal di jóg dem ci ñu mel ni ñoom Oustaz Sané di gëstu diineem bi ñaari at yi jeexee mu ñëw ci ndaw si ne ko man day démb ca jàkka ja laa jóge dugg naa ci lislaam ba Omar ibnul Xataab lañ ma tuddee mu des nag yow yow doob julit loolu la ko tubaab ba wax yow doob julit mu ne ko ndax man li ma gis diine ji ne moom la jullit war a mel yow meloo ko suñu ma àgg sa papa nag ak sa yaay waaye yow moom li diine lislaam wax ne noonu la ab jullit bu jigéen war a mel yow meloo ko doonoo ko moo tax ni nga ma seexloo woon ba nangu woon ñu sëy nun laa la seexloo tey ba duma sëy ak yow loolu gàcce gu rëy la waaye lu jara bàyyi xel la ab julit laa ab julit laa dangay ngay nekk julit ci sa aqida ci sa gëm-gëm ab julit laa da ngay nekk ab julit ci sa gëm-gëm ab julit daal da nekk ab julit ci say ibaadaat sa jaamu yàlla ab julit laa da nekk ab julit ci say jikko ab julit laa da nekk ab julit ci sa sharia su boobaa yaa ngi dund lislaam mbooloo mi ci koñ bi de ku bëgg bokk dangay jënd carte de membre téye ko ci sa par di ñëw réunion léegi bokk nga waaye ci laa bokk rek boole wula ci de ab jullitam day nekk jullit ci biir njabootam baay ju jullite jëkkër ju jullite jabar ju jullite kër gu jullite te kër yi nga dégg ñol ñol jeeg jàppal bàyyi lépp loo rek ko waral dëgg la nag kër gi tur yi ay turi jullit lañ xale yeeg mag ñi ñëpp ay turi jullit lañ yor waaye nag ndax yii may wax nii ña nga caam déet loolu beneen affaire la ab jullit laa day fekk lislaam jaral la xëy ak a gont ba jëlee ko fi mu nekk teg ko feneen mbaa ngi yokk ab dox fi ne ñun ñëpp ñu bari ñun am nañ am nañ whatsapp waaye suñ whatsapp yi tuubagut suñu téléphone yi tuubagut bépp téléphone boo xam ne buñ la ci envoyé vidéo musique doo ko su permet yow sa téléphone duubagut envoyé la benn ojo ojo jëw walla audio yàq deru jullit ni yow wala nga dem ci YouTube gis na diw a ngi saaga diw nga kilike ko sa téléphone bi nekkagul jullit aw saaga kenn du ko déglu ab jullit sañu ko sañu ko dugg sa YouTube walla sa WhatsApp ñu lay envoyé ay kafa ki juxur juxur yooyu ki diw moo saf xorom dese nga lu bari yooyu amul fulla te ab jullit di am fulla ñu ñoo ñuy bëgg rey te bu ci waay caaxaanee ba nga teg sa baaraam may nga ko deux cent cinquante francs li gën a tuuti mooy nga gis ne diw dafa def as sketch théâtre nga ne ko caw pour seetaan ko may nga ko juróom fukki dërëm te képp ku dekk ci ñun bala ngaa dox fii ak tëli ba sunu borom laaj la li nga amoon foo ko jëlee ak foo ko dugal te Ibnu Abbas daana wax ne fukki dërëm yu duggul fa mu war a dugg boroom mbokkum seetaane la fukki dërëm yu dugg fu dugg mbokk yi ñu bari ci jullit yi yàlla bu mu doon yéen mooy man ab jullit la parce que sama yaay jullit la jullit la ndaxte sama papa julit la est-ce que bu sa papa génnoon ci diini ji kon du ngeen ànd génn est-ce que bu sa yaay génnoon ci diini ji du ngeen ànd génn awwalu maa yajibu al mukallaf tasxiihu imaani yi jàng ngeen ko ki mat mu kàllaf li mu njëkk a def mooy est ce man ab julit la tashihu imaanihi est ce que ni ma gëme noonu la ab julit bu jigéen bés bi mu njëkkee gis póot la jël fonction bés bi mu njëkkee gis póot la jël fonction góor bis bi mu njëkkee gént di jaxasoog jigéen la jël fonction ba baa muy sàngoo suuf nag bu teggee tànkam rek xamul li xew ñu bari nag julli laa parce que sama papa jullit la parce que sama yaay jullit la julli laa parce que sama jëkkër jullit la julli laa parce que parce que mu tax lépp ñun fi ne léeg-léeg ñu ñu juddu tariqa bi seen papa nekk ca la ñu nekk euh, diina ji seen papa nekkoon looloo leen ci boole waaye est-ce que bi nga nekk daf laa convaincre ba nga nekk ca boobu sa papa nekkutoon nga nekk ca loolu nag beneen affaire la mbokk yi nun ñëpp war a xam ku bokk ci lislaam noo war a mel bi lislaam di tàmbali saasaane yonent bi dafa yebal ay gaay ca ca pour duma yi métti na vraiment duma yi metti na mu yebal leen Habasha ñu dem làqu ji fa ñu dem toppi leen waaye kero bi najaasi yi xëyee woo leen daf leen wax waa yéen lu leen booleek seeni bokk lu laaj bu bu leen laaj lu leen booleek seeni bokk saaba ne jaafar tontul ñu ko to jaafar ne ko li nu booleeg sunuy bokk mooy lislaam najaasi ne ko luy lislaam mu ne ko mooy nun ay ceddo lañu woon am ku bokk ci sunu biir ñëw terenu ceddo joxoñ yoon wu baax ñu jaar ca yoon wa sunuy bokk merenu loolu kan la joteeg ñoom waaye yoon wu baax woowu nag mooy lislaam danga cee bokk hmm. barki démb dafa am masala mu nu dikkal ca rajo ba ilimaan ju yem ci fanweeri néew ak ñett fanweeri néew ak ñett léegi munta xam néew yi jullit ak yi dul jullit tey suñu école yi collège yeeg université yi buñ la joxoon benn mini ne la demal nga nga indi quatorze jullit yu jigéen nga am problème xanaa dangay laaj noo tudd mu ne ay da nga ne ko yéegal ah du noonu di war nga soo ñëwee rek man ne yéegal yéegal yéegal yéegal mais noo tudd ma war ci am hmm? bu la joxoon kaar bële ne la demal marché nga indil ma fukki jeeg ak juróom yoo xam ne yëpp ay jullit lañ sunu réew mi jeeg yi nekk jullit ak jeeg yi nekkul jullit ñoo yem genn col ñoo yem benn langage feet yi tàmbali tey di jeex lëndi bële ni ko jéggee di feete la ko sun jéeg yi di feete ñoom sax léeg-léeg ñu dem ci église ba waaye sunu jeeg ñoom ni ci kër gi teg seeni misigi mbalax def seenu mbaxal soppi seen cin naan dañ koy def en famille ah loolu ab jullit sañu ko mbokk yéen ma wax naa leen wax kañ la nit sañ a wax ne ab jullit laa loolu laa leen bëgg a wax ki bëgg a wax ne ab jullit laa dafa am yu koy xaar bu ca nekkee buñ ko ko waxee moom la bu buñ ko xatil moom la borom bi nee na huwa jtabaakum wa ma jaala aleykum fi diini min haraj millata abikum ibrahim huwa samaakum almuslimin min qabl wa fi haza liyakuna arrasulu shahidan aleykum wa takunu shuhada ala annas fa aqimu salaa wa atu zaka waatasimu billah huwa mawlaakum fa nicma al mawla wa nicma nasir laa ji de bu mokkoon bu nu neexee jóg ñibbi borom bi nee na huwa ji tabaakum moo leen kon ku bokk moo la boole allahu akbar ku bokk ci diine lislaam sunu borom moo la boole wajtabaakum moo leen sélectionné moo leen tànn wa santu leen lu ngeen mënut moo leen tànn waaye santu leen lu ngeen mënut Sadio Mané bi ko Aliou Cissé tànnee ak tey musu koo teg ca camp ya ah seetlu ko boog man Sadio maani nekk ca camp yi di góolu man di gisuguma ko ndegam waaw ndegam Aliou Cissé moo dul jaxasee noonu yàlla waxi noppi yàlla santaaniwul lu kenn munta def téerewul lu kenn munta bàyyi wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj millata abikum ibrahim seen bàyyi ibrahima fam jaaroon rikk waay jaar leen fa sunu bàyyi ibrahim dafa dëkk fa sori màkka takk jabar jabar ja am feebaru du am doom jabar ja proposé ko wutalub ñaareel jabar ja proposé ko wutalub ñaareel fi ne mbooloo mi toog ci tànt bi yëpp su ma duggee ci ñaareel ñaareel ñu ne conférence baa ngi bëgg a yàqu maa la ko wax léegi de sunu borom def ne millata abikum ibrahim yoonu seen baay ibrahima ibrahima takk jabar jabar ja amul doom ba am juróom-ñett fukkeen mbaa la ko jege waaye jabar jee na ko najaay takkalub ñaareel su ma amul doom moom mu am doom ndax yow missionnaire nga comme kon ñi topp yoonu Ibrahima wi daa mel ni kon bariwut daa mel ni kon bëriwut ah xawma yëmbal de wala komiko waaye jëppal gee ma dëkk de génn góor ñu mu faa boole ñaari jabar ci génn kër waxuma la boole ci génn kër sax waaye tàggoon yaa ngi ñaari li ñi ko gis naa fa sax ku ñaareel aaw ba demm loxo ba ku dóor ba loxo ba demm maa la ko wax ana millata abikum ibrahim beneen bi ibrahim li waral tabaski keero ba ko sunu borom ne ren lil sa doom ji daf na ko tey laay tàggoog moom jël paaka teg ca baat ba ñun sunu doom balañ koo balañ koo xupp dañ naan ko lee nga dem daara yow taxawal rek loolu lañ koy xuppee ah mos naa dem ci génn kër ma xuloog boroom kër gi fan njaay ñëw ci kër gi di nuyoo xale bi cëpp-cëppi papa ji ne ko sax da la yóbbu daara ja de ma ne ko ah man de sama daara ji sa kër gi dàqu ko ndax gone yu fi set la ñu tëdd di lekk lu neex di sol lu set di jàngal xuraan mu ne damay kaf rek ma ne ko kaf gi laa nanguwul parce que da bëgg sa doom ji ragal ma ah, ah dama la yóbbu dama la yóbbu daara de eh, lu tax ñuy xuppi ni dama la yóbbu daara te daara dàq école fuuf lu tax doo ko wax dama la yóbbu école ah bi nga xam ne dangay jàng ba màggat xubbi daas euh, jàng ba mën a pose ah di stage ak def yëf ba noppee stage ba màggat boo amee sens am un jëkkër euh, très compliqué Ah boo amee chance am deux gosses ndax ki sëy ci aas bu tardé ki sëy ci aas bu tardé ay bu ci ti njurukaayam ak yëpp dañuy lànk moo tax opéré rek mbaa du am doom te deux fois am ko ko opéré mu yem fa kañ ngay jaboot yal na yàlla yërëm leen ah wax naa dëgg de huwa sammaakumul muslimiin seen baay Ibrahima moo leen tuddee muslimuun luy muslimuun mooy ñu nangu seen baay Ibrahima moo leen tudde sama doom yi nangu muslimuun allahu akbar waaw nee na doomam yi muslimuun ñoom ñëpp a nangu min xablu démb la leen ko tudde woon wa fi haasa ak tey démb muslimoon tey muslimoon moo tax fi ne diine judul lislaam ma wax ko ci tàmbali bi ma ne man xawma ko xawma ko de ustaas kero bi yàlla yónnee noo daf ne ko damaa am bâtiment bu mu bëgg a tabaxlu R plus 4 ah mu ne ko waaw yow nag état suuf gi R bi yow yaa koy def nooxun def ko mu ne ko mën ngaa wàcc bi mu wàccee Ibrahima ñëw tabax premier étage mu ne ko mën ngaa wàcc bi mu demee Moussa ñëw tabax deuxième étage mu ne ko mën ngaa wàcc bi mu demee Isa ibnu Maryam ñëw tabax troisième mu ne ko mën ngaa wàcc ku ñu wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw tabax quatrième étage mu ne ko yow doo wàcc hmm? mu ne ko yow doo wàcc allahu akbar yonent yëpp wàcc mu ne ko yow doo wàcc doo wàcc de li ta li yakuna rasulu shahidan aleykum yow doo wàcc wa takunu shuhada yéen it du ngeen wàcc ah du wàcc du ngeen wàcc moo tax diine ji daa war a sañ jaral ab jullit muy xëy ca di ca gont tey daara ji Abdoulaye Massoud julliti koñ bi buñ xamoon message bii ñi am ay cuub dañ koy jaay ñëw jox ko daar ji ñi am or jaay ko ñëw ko jox ko daar ji maa la ko wax mais comme xamuloo ko dangay toog rek muy toog jàpp ne wàcc nga déedéet wàcc goo de ah. waxtu wi suba bu dee bu yàlla defee jàmm jullit yaa ngi jóge kokki di ñibbi daara joo xam ne fi mi ngi ci juróomi junniy dong juróomi junni allahu akbar ab jullit mënta wàcc li yakuna rasulu shahidan aleykum wa takunu shuhada ala nnaas moo tax kër ba mu demee arafa arafa ñi demagut yàlla nañ dem ñi demoon yàlla nañ dellu mu wax discours bu gàtt discours bu gàtt boo xam ne waxu ca julli waxu ca or ak gi sax tudd ko ca yoxu ca asaka moom daal discours ba gàtt na fonkante leen nawloonte leen fonk leen jigéen ñi ase ñu julli jeex na kat waaye bi ñu laat demee mu ne fal yu di ko shaahidu minkumul ghaayib wax ji li muy gàtt-gàtt ku am audio bi na ko partage ku am vidéo bi na nga ko partage fal yu ko shaahidu minkumul ghaayib fenn fu mu ne balliku ñi balliku a ni walaw aaya kon ñun duñ wàcc faqimu salaa dee leen taxawal julli ndax ngeen man mission bi wa atu zaka dee leen joxe azaka ndax ngeen mën a def mission bi waatasimu bi hablillahi waatasimu billahi ngeen mooy ci yàlla bu ngeen nekkee benn man li may wax su ngeen tàqalikoo du ngeen ko mën laa mawlaakum yàlla mu ne man rek ngeen fi am mbokk yi sunu borom nee na moom rek lañu fi am wax ju daw yaram nag la sa borom mi la moom ne la man rek nga am woo mawlaakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir ku am dara ku am leneen jëlal allahu akbar yàlla nee na moom rek lañu fi am ku am leneen jëlal mbokk nun war def nun jël ko rek lu dul moom bëggunu ko ku dul moom nun bëggunu ko nun ko bëggee moom mbokk yéena ma laaj kañ la ab julit sañ wax ne ab julit la bankal sa baaram an akuna musliman fi aqidati ab julit day nekk julit ci gëm-gëmam ci gëm-gëmam mu gëm ne àdduna si yëpp kenn ko bind moo ko moom moo koy doxal ci ni bëgg mu doxe ko ñaaral ba mu gëm ne yàlla indiwunu fi nii rek ñu dugg école jàll lycée dem cité génn am jabar am ay doom retraite ñëw toog ci kër gi màggat ñuy fajaka toppatoo ba bis ñu yóbbu hôpital mu faatu di def ca morgo ba àgg dem suuli loolu andiwuñu fi de kooku boppam dong la fi nekkaloon kooku boppam la fi nekkal ñetteel ba ci ki bëgg a nekkub jullit ci gëm-gëmam day gëm ne yàlla daa yónni ay yónent jox leen ay téere yonent yaag téere ku ci nekk daa am lu tax mu tàmbalee ca noohun jeexa ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam Oustaz Sané bi bi noohun ñëwee moo tabax alif Ibrahima tabax laam alif Moussa tabax siin Isa tabax laam alif Muhammad tabax miim looy am al islaam loolu la yëf fi nekk ñeenteel ba ki bëgg a nekk julit day xam ne jubluwaay bi yàlla am ba tax mu bindunu dafa bëgg nu xam ko ci niñ ko war a xame ndax yàlla di ko fóon muy xeeñ duñ ko làmb di ko daj ab xol a koy gis akum xel juróomeel ba ci ki bëgg a nekkub julit day gëm ne aljanna am na naw gaay sawara am naw gaay gaa yi aljanna dañuy def nii topp programme ba dugg ci gaa yi sawara dañuy sàggan ba dugg ci yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci juróom-benneel ba ab jullit gëm ne lépp lu mu fàggu ci lu baax walla lu mu fàggu ci safaan du wàcc aw loosam fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara sunu téléphone yi war nañoo jàngal téléphone bii ma yor kenn ci yéen xamul weef bi ñaata la orange money bi ñaata la crédit bi ñaata la fi mu ne su defee huit cent mille maanaam ci misaal sama orange ma ne tey def na huit cent mille yu teg waaye démb ba mu defee cinquante franc poids bi crédit bi yokku ko lu am solo la tey bu ñu la takkaloon huit cent mille nga ngaa bokk naan dung ci sa poos bi mu nekk ci téléphone bi ne tekk yow mal xëyaam yéen jigéen ñi yéen jigéen ñi yéen góor ñi ak nun góor ñi bu yàlla naan sa inna laa sarawul xisaab rek la ba daa gaaw mooy demal yéeg rek ñu xool waaw ah? boo yéegee rek ñu xam ñaata nga am ci taqwa ñaata nga am ci imaan nga jàll tey ñi ñi ñiy dem ci aéroport yi léegi yi nga xam ni ko moderniser benn machine ngay dugg da ngay taxaw ci digg machine bi machine bi tëju ko bu tëjee tijjeeku rek lay wax yow yor nga dorog wala yor nga gànnaay mu jeex boo yore dorog du tijjeeku boo yore ngànnaay du tijjeeku te ca ngay dugg rek ñu la duggal ci biir nga dugg ñu la jàkkaarloo ak seet bi nga jàkkaarloo moom yëkkati say lox nga yëkkati rek mu tëjee boo yor dara mu tijjeeku nga jàll boo yor dara mu téye la fa allahu akbar mbokk yi bu ngeen bëggee seen crédit yi diis seen weef ak Orange Money diis jëf ji baax koy diisal boo nee laa ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir am nga fanweeri gëléem trente gëléem xaw ma nu ñu wax gëléem ci tubaab waaye am nga trente giléem giléem ci gànnaar trois cent cinquante mille trois cent cinquante mille fa trente ñaata nga am ñu def ko ci sa ci sa weefu yomal xiyaam wala ci sa Orange Money wa wajadoo ma xaadira ku àgg fekk fa sa yëf waaye gis nga nu ñii léegi danañ fa dund ba xëy dem yomal xiyaam dëkk ci baraag maa la ko wax dem aljanna dëkk ci baraat parce que tabaxoo ko ak daw si mbokk ma Abu Hurayrata ma dañ koo faloon gouverneur Omar ibn Xattaab ne ko indil ma listu faqiir yi ci dëkk bi ndax xéewal daa ñëw ci trésor bi ñu bëgg leen ci sédd ku ci ne war naa am cinq cent jox ma liste bi oustaz gouverneur di bind liste ba mooy troisième personne gouverneur bu région bi mooy troisième personne ña ñàkk ca dëkk ba Omar yónnee leen ku ne cinq cent mille daal di noté nag gouverneur bi ñu tegaatee juróom benn weer Omar laajaar liste bi tey gouverneur mooy deuxième Omar ibn Khattab daal di jaaxle jël aw dàllam seetu gouverneur bi ma agsee li ñu ko njëkk a wax mooy alhamdulilah bi nga ñëwee sunu gouverneur bii da nga ci wax maa nga folli ko jëmee ko feneen mu ne lu xew ñu ne ko ñun mënuñ koo gis guddi nuñ koo gis alxemes te day kiris Omar na ah gouverneur déggal sa bokk wax mu ne ah dégg naa lépp de lu tax ke mun laa gis alxemes mu ne aw oh, ma mbindaan mu may fóotali alxames laay fóot sama yére comme damay yendoo yara mu neex nag mun maa recevoir kenn Omar da ko boobu di nangu naa ko lu tax ngay crise nag mu ne ko damaa fekkoon fu ñu reyee ab jullit te boobu du moom julit bu sama xel dema ci nañ ko doon reye rek ma kiris Omar na ko boobu denangu naa ko boobu denangu naa ko lu tax kenn mun laa gis guddi mu ne inna naasi'ata layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila bëccëg bi jaam yàlla yee ko moom guddi gi boroom jaam yee ko moom Omar na ko lu di dëgg la daal di jóg fóon ko fii moom Omar ne ko nag man li ma taxoon na ñëw mooy lu tax bu liste faqir yi ñëwee rek nga bokk mu ne ko bi nga ma mujjee yónnee dafa fekk soxna si ne ci waañ wi ma ne ko am nañ cinq cent mille bu fi ñëw ca waañ wala waaxoo ñëw fekk ma fii daal nag ndax yàlla nu defar ci taseer waañ wi defar ci nangam defar ci nàngam addaw sii ne ko sunu waañ wa ci yowmal xiyaam pare gut bayil ma def ko ca teñ kopp koppal waañ wi new allahu akbar nañ defar waañ wële waañ wi jërte sonne hmm? wabtaxi fii maa aataaka law daaral axira daa war a leer wala tansa nasiibaka min ad-dunya juróom-ñettel ba ci ki bëgg a nekk ab jullit ci gëm-gëmam mooy mu xam turu yàlla yi ak melokaanam yi turu yàlla yi ak melokaanam yi ak melokaanam yi nga xam ne moom la yeyoo te moom rek moo ko yeyoo boo ci jëlee wenn melokaan wala tur teg ko nit rek mu mere la waaw moo mel ni mu war mel moo xam lim xam moom dong jëla jëlalu turam yi moom dong ko xam moo ko moom soo ko wéetalee ba noppi nag nga bañ koo bokkaale ab julit su bëggee nekkub julit day bañ a bokkaale lan mooy bokkaale baatu bokk baatu bokk baatu bokk mooy nga taaj nit ndab jox moroxu xuj kuddu jox galay kuddu jox ko kuddu loolu mooy bokk sa jëmm ji saa bu ko yàlla bokkee ak kenn yàlla day bàyyi ne la comme man dangaa jël sa jëmm ji sédd ma ko maag diw bàyyee naa diw sama wàll ndax man am naa kenn ku ma jox ko dul moom loolooy bokkaale nogay góor gu ñëw léegam bëgg doomam kero la nogay def bokkaale boo xam ne mooy yàq jëfam yépp ndax day solu dàllam seeti meer kumba man ka daam ku ñëw sama kër dafa bëgg sama doom ji ma bëgg seet ba xam wërsëg yu dëppoo am déet gis nga keroog li nga jaamu yàlla ci weer wi yëpp lépp a yàqu sa jullee yàqu na wooree yàqu na bu doon aj màkk aj màkk ga yàqu na la in ashrakta la te nag am na meer yu bari bàyyiguñ ko te wallahi amul kenn nit gu la tane ci sukkay ne mii ak paate mii ndax seen wërsëg yi dëppoo na amut luy wërsëg yu dëppoo lan mooy wërsëg yu dëppoo yow ngay góor war a yor sa kër gi di wut koo dëpp la wërsëg loo ci wut teeloo am nga indi ko ci kër gi ngeen bokk lekk moom bu amee yët yaayam ngeen baal ma foofu la ñàkk ko jom tàmbali ci góor damay seet ba xam suñu wërsëg yi dëppoo na ma takk la léegi loo bëgg ngeen def bien bien commun ngeen bokk yëf yi loolu du jom de moo tax góor ñu bari mëntuñu am xaalis léegi ngeen baal ma yéen góor ñi kopp koppal ci góor du am dara doo ko am kat waaye loolu loolu bokkaale la nga dem ca meer Kumba tane wala ci de déedéet daf laa fit rek mu da ay pétaaw rek yëngal yëngal ba mu neex ko rek mocc pétaaw tasaaroo bu gisee pétaaw bu jaaxaan mu ne lii de ak jaaxle la bu tasaaroo jëm ne mu ne lii de ab tukki la bu jëmee ci moom mu ne lii de xéewal la bu amee ñaari petaaw yu def nii mu ne di aw waxtaan la te petaaw xotti gerte ñooyam koo ci tasaare mu tasaaroo waaw ah mu lekk sa xaalis te nag léeg-léeg nga def ko nit mu far tas ngoro ga gonu jigéen da nga ci am gonu jigéen goo xam ne mook bàcc ñaari at ngi nii ñuy ñuy ngoro yaayu xale bi jigéen ba dem ca genn góor mu ne ko seen aussi dëpp wut mu ne sëy bi du am allahu akbar mu bàkkaar nga bàkkaar mu bàkkaar ngeen ngeen lor leen ñoom ñaar yéen yàlla dimbali mbokk yi ñaareel bi ci ki bëgg a nekk ne ab julit laa day nekk ab julit ci ni muy jaamoo yàlla day nekk ab julit ci ni muy jaamoo yàlla qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin lillahi ab julit buy bëgg a julli def déclaration buñ la xàmmee mu ne allahu akbar daal di xul inna salaati julli gii may julli julli gii may julli lillaahi rabbil alamin yàlla donga ko moom woo nusuki su ma rendeetee su ma rendeetee tuur deret lillaahi rabbil alamin yàlla donga koy moom wa mahyaaya ni may dunde système sama dund lillaahi rabbil alamin yàlla donga la may dee ëllëg jaay ci sama bakkan lillaahi rabbil alamin ah mbokk yi ab julit engagement yu lay jël hmm? booy kàbbar di julli na yàlla rekk tax moo tax léeg-léeg nga ñëw ci mbooloo nii comme sañse yi la yàlla xam doy na nga gis koo xam ne bu demee jàppi sañse bi day yàqu ndax niñ ko sañseele euh, salon bee ko man moo mënulu ko boppam te fay na salon bi trente cinq mille salon bi sañseel ko léegi bu julli jotee day wax ne su ma demee julli ji jàpp sañse bi day tas kon nag naa toog ba ñibbi julli ko keroog la yàlla génn ci yow ah lu garaaw la di li xew léegi ci ci ci xale yi dangay am doom samedi nampal dimanche lundi mardi mercredi ba samedi ji ñu ngénte yaa ngi nampal sa doom te te nekk ku naturel samedi nga xëy rek dem ca salon ba salon ba déformé la def la beneen maman rëdd sa bët yi wat sa yéen yi peinture sa tuñ yi ah maasa la sa lex yi da ngay ñëw booy jël bébé rek mu yuux booy jël bébé rek mu yuux ngay mag-magal ñu naan daa xiifoon di daa xiifut de kii di ko nampal du yaay da ko doon nampal depuis une semaine gis nga loolu loolu garaw la fi ne yaay doom yaa ngi bañ seen yaay yi te lii rek ko waral yow lay wuti salon ba yow ni nga mel bañ nob la ba lay ngénte tey ah, wax naa dëgg nga mel bañ nob la ba lay ngénte tey doo ko bàyyi noonu dem ci solo ba fay léeg-léeg sax bu ñu bu dee ci ceet gi nii buy ñëw day sol robb boo xam ne toll na ni fii ak oto bële ñu ñu téyel ko ko muy dox yàlla nu yàlla yërëm mais des na lu bari yàlla xam na ko ah des na lu bari ab julit bu bëggee nekk julit ci wàllu jaamu yàllaam day fonk julli di ko def ca waxtu wa di ko defe nañ ko santaane di ci séentu la ca am waaye bu fekkee ne kur bu kur nga bàyyi ah déedéet kon dese nga lu bari soo tayalee bàyyi soo sonnee bàyyi soo jaxlee bàyyi ah soo toilettoo bàyyi du noonu de bi ngay jaamu yàlla it nga fab sa xol bi e, teewal ko ci li ngay def ndax mooy tax nga mën a enregistrer dara ci jaamu yàlla gi waaye bu fekkee da nga koy këpp-këppal rek ñëw jóg daal juwaat déedéet julli dañ koy teeylu ndax bisi ngi ñëw ñu jullee la te ku bëgg buñ ko jullee jullee ko jaar coon nuy julli julli ko jaar coon bokk na ci ci jàmm yàlla yooyu sa digganteeg alxuraan jigéen ñaa ngi doon wax léegi jàngaleen alxuraan mbokk yi sunu digganteeg alxuraan moo war a raw suñu digganteeg téléphone yi fi ne da àgg kër gi xool sa téléphone mu am benn baar bala nga am jàmm alma alma chargeur téléphone bi lakkale huit chargé ma nga ab sarsar def ci fi ne suñ lay woo te fii amul réseau ñu naa la déplacé wul tuuti da nga jóge fi waaxu fële téléphone bi la puusal ndax ma am nga dox ba fële pour am ko léegi noonu nga mel ci téléphone bi noonu nga war a mel sa diggante ak alxuraan ah mbokk yi am na ko fi doon tari léegi wa duhaa mbaa yéen ñëpp ak ngeen Wadduha neen ko weesu de góor gi Abbas Sall de la yuntu ba jàngale woon keroog muy génn àdduna def na ko ndax daa xëy di jàng ba tisbaar jot mu faatu minal mahdi ilal lahdi waaye fi ne nit ñeme naa nekk ab julit te yaa bi xamantewu leen oustaz dañoo dem aj màkk 2013 sunu ujaaj yi ñun vol bi ñu àndoon mat nañ daanaka ñetti téeméer ñu wàcc ci teg suñuy bagage ci hôtel bi ci Madina dem nag di julli ji timis jigéen ñu jóge Mali ñëpp a jël kaamil jigéen ñi jóge Conakry ñëpp jël kaamil ñi jóge Nigéria ñëpp a jël kaamil Maroc waxi noppi ñu jóge Sénégal ñaar a jël kaamil cent personnes deux ñoo jël kaamil hmm? ndaw sa dafa jooy keroog ba ñëw sama néeg ci ma dal ne ma maa am gàcce tey ma ne ko luy sa gàcce mu ne dañoo wàcc ñun ñëpp mat na ñetti téeméeri jigéen jóge Sénégal ñépp jël téere ba mu des nun noonu ma ne ko gàcce gi des na mu ne ah mu ne ko boo fekkoon yonent bi mu toog ca kaw bar ba yéen sénégalais yëpp kenn jëlul kaamil bu leen laaje lu ngeen di wax ci koo xam ne nee na yéen ñëpp chaque vendredi lu sa jàng tuuti tuuti na nga jàng sóortu Kahfi du loolu la wax ay boo ñëw yow xam ñu daa ah, baax na baax na la maître Wade waxoon mu ne sëñ Cheikh man dama am problème bu rëy sëñ Cheikh na ko sa problème mu ne bu ma yonent bi làkkee arab lu may wax yow ma la suñ Cheikh na ko dama jàng arab kon waaye kaamil mbokk yi ah, xam leen ci dara wàllum góor yéen ñi man de yor naa man tam ay jeeg ci jëppal de ni yéen ñi lañ toll yàlla xam na ko waaye bu dimanche maag ñoom 9h ba 13h30 ñu jàngal alxuraan oustaz jeeg boobu ni mu def mooy bi mu ñibbisee Sénégal def na jëkkër ji dama bëgg jànge alxuraan benn nu ànd mbaa nga wacc ma mbaa nga toog muñ looy wax ni mu ne ko moom kay lii rek kay am wàcc ma ma dem jàngi mbaa nga toog xaar ma muñ ma dem jàngi mbaa nga ñëw ñu ànd waaye demaat màkka dugg ca jàkka yonent ba mu tëdd ca biir sama moromu jigéen yëpp jël kaamil jëluma fii lay yem def na ko ñetti at ñetti at seen lekk la doon liggéey defe naan seen lekk lu la yaakaar mu bind lettre démissionné wala ngeen ma amee disponibilité lu xew damay jàngal xuraan ñetti at la am ba mu delloo ñu jël téere mu jël téere def leen ko mbokk yi bu nu jógee fii nañ dal ba bi bu bu yàggee nga man ta ti tu bu yàggee nga man njàng bi sax yow mën a léegi ndax mën nga am si whatsapp ñu dig ñu jàngal la ca dara mbokk yaa ngi laaj micro bi xam naa benn minute la wala ñaar ñu del soit ci jataay bi Eh, incha allah shukran. oustaz ci fi nga toll foofu la jigéen ñiy def bu ñu wax daba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون قبلهم من القرون أنهم لا يهدئون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا وجعلنا فيها جنات من نحيل وأعناب وفجرنا فيها وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان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 الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتقوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ودعا للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعبس العس والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار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

صوتهم فوق صوت النبي فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لبعض أن تحبط alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi mbokk yi ñu ngi nuyu mboolem ñu fi teew di nuyu kilifa yi ñu fi fekk yépp di nuyu ustaaz Alioune Sall xafidahullah di ñaan yàlla mu dolli ko wér ba mission bi nga xam ne moom la yor mu mën koo àggale fu kawe njortam soxna yi tamit seen taxawaay ci njàngum alxuraan yàlla na yàlla gën leen dëgëral e, li ñuy ñaan rek mooy yàlla nañu yàlla may dégg ak topp amul lu ñuy contribuer ci waxtaanu oustaz ndax li mu wax ci li ngeen ko laajoon defe naa ni tontu na laaj bi mu des nag ñun ñu ko laajoon laaj bi nu nuy def ak sunu tontu loolu mooy li gën a am solo. ci conférence bi bu la wóoree ni yaa laajoon naka la jullit di def ba mën sañ ne ab jullit laa yeñ la limal benn bu ci nekk boo demee xoolal foo ci toll ndax nit mooy régler boppam xoolal foo ci toll bu ci manqué di nga xam boo ci matal di nga xam loolu mooy réussite conférence bi conférence réussite am du mbooloo ma bari na mooy lañ fa wax lan la def ci man su amee lu mu def ci yow conférence bi am na njëriñ ci yow su deful ci yow dara conférence bi amul njëriñ ci yow kon yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam dañuy dégg wax topp la ci gën a rafet di waxaat ñun ñëpp ñu gën a ñaanal oustaz Alioune Sall ak soxna yi ak ñëpp ñi nga xam ñu ngi jàpp ci lu mel nii ndax ci lii lay dox guddi ci lay dox suba ak ngoon kon yàlla na yàlla yokk ko wér yokk ko kartan ba ni muy gindee doomu aadama yi suñu borom may ko mu yóbbu ko fu kawe njortam ñu ngi rafetluwaat bu baax conférence bi di rafetlu jigéen ñi di leen encourager ci alxuraan bi ñi ci nekkul tam ñu ngi leen di woo ñu ñëw fekk si seen i mbokk seen i mbokk jullit ci lii ndax ku la woo ci lii rek woo na la ci lu la jëme aljanna kon na jigéen ñëpp ku ci bokkul na fexe bokk ci li nga amee fulla ba bokk ci mbootaay ba di ca def la nga cee def defe naa ne mbootaay bii mooy mbootaay bi gën te mooy bii tax nga texe fii texe fa nga jëm yàlla nañ ko yàlla defal defal leen salaamaaleykum wa rahmatullah ab jullit fexe ba bu ñuy séddale kaamil sedd ko bu ajee màkk bu duggee ca jàkka ja ku jël mu jël loolu jar na lu ne ndax jàkka ja moom ku jàpp ne boo ci duggee boroom jàkk ji yëgu la xamoo li xew waaw koo ci xam ne jàpp nga ne boo duggee ci jàkk ji boroom jàkk ji yëgu la xamoo li xew saar yi ngeen nu jàngalit waxtu wee xat nekkoon saar wu ci nekk ab joxoñ la joxoñ bu rëy ca màgg ngir jullit yi waaye yéena ma kañ la ab jullit sañ wax ne ab jullit la ma tolloon ci ab jullit ci ak jaamoom yàlla ba àgg ci ak jàngum alxuraanam waaye mu ñëw ci beneen tomb ci kañ la jullit war a nekk sañ ne ab julit la mooy mu nekk jullit ci ay jikkoom an akuna musliman fi axlaaqi ab jullit balaa sañ ne ab jullit la day defari jikkoom ndax sallallahu alayhi wa sallam dégg ngeen hadiisam ba innama bu'istu li utammima makaarim al axlaaq nee na àdduna len laa fii wut mooy mottali jikko yi loolu la fi doon wut jikko mooy lii na ci nit mu am lu muy jomb mbaa lu muy bañ mbaa lu muy ragal su jikko nekkee ci nit day sàmm aw làmmiñam boroom mi jikko du def làmmiñ wa lu ko ca neex wax am na koo xam ki boo ko waa penc mi yëpp doon saaga moom sañu ta saaga ndax yonent bi nee na ab julit julit dañuy mucc ci làmmiñam mucc ci loxoom mu door a nekkub julit kon ku rafet jikko day njëkk a sàmm aw làmmiñam li ca tege mooy ab julit day am jikkoy muñ ab julit day am jikko jikkoy muñ muñ naa ba sonn ëpp nay wax li ëpp ci ñi nekk ci néegi sëy yi benn ngay benn yoon ngay tooñ mbaa nga juum mbaa nga def nangam rek sëy bu fa lay doxe tas góor day muñ jigéen day muñ mag day muñ ndaw di muñ ab julit bokk na ci liy defar ay jikko mooy mu bañ a fen ab julit du fen fen nag bokkut ak sos ki gis dara nettile ko koo koy wax fenkat la ki wax lu amut moom dafa sos moo gën a garaw te nit ñi kat na yàlla baal fekke dara na ca cell ñaari ganaar sax ñu fekkoon ñuy xeex buñ ñibbee daana billaay tey ganaar yi ma doon seetaan seen xeex ba ni méttee ab jullit du nettali gis nga sunu réew mi dafa bokk ci li ko li ko li ko taxawal fi mu taxaw ci jamono maître Wade benn bis la xëy rek ne ne ne yi kaay leen ngeen waat maître xëy rek ne ministre yi kaay leen ngeen waat lu ñu waat mu ne lu ñu nos fii ba lañ ko génn rek su journaux yi génne ko kon yéene ko génne waaw buy bëgg def remaniement bala koo def gaa yi xam kañ la koy def ñan la ñuy folli ñan la ñuy fal kenn musul gis loolu nekk le rek bari na ci ñun ñoo xam ne tey buñ doxoon ci mbedd mi te see galaay sax buñ demee tase naa galaay danaay wax ne léeg-léeg nga ne nit gëj ngaa gis bàcc mu ne kër ga la añee adduna tukki na di gëj ngaa gis bàcc neel waa mbaa nga ne déet waaye kër ga la adduna tukki na te loolu ci fen la bokk danga yem ci liñ la laaj kay mu ngoog ab julit bokk na ci lii tax mu xam ne ab julit laa ci wàllu jikkoom mooy mu woyof mbokk yi ab jullit day woyof lan mooy woyof mooy nangu dëgg ab jullit bu woyof mooy jullit bu nangu dëgg ku bañ dëgg da ngaa waaw waaye foo ko déggee baaxul waaw waaye ab jullit bokk na ci jikkoom yu rafet mooy du du du luñutu yëfi jàmbur luñutu yëfi jàmbur mooy bëgg a xam ñuy dugg fee lu tax ñu fay dugg gis senegal Sénégal ndeysaan njort lu ñaaw tax na auberge xaraam njort lu ñaaw tax na fi ne dëkk bi kenn ñi mu fee tabax auberge kenn ñi mu fi dugg ci auberge na dama fay yenn ndax lan jàpp ne ne auberge moom ku baax du fa dugg ba far léegi loolu topp na ko mel ni mbaa mbaam ak turam xaw ma fu jëlee turam woowu bokk na ci ab julit day tabe mbokk yi ab julit day tabe nangoo bokk ki bokkam lim am ku am lekk bàyyi say bokk sa boroom yàq la nga am inna balaw naahum kama balaw naa tom bu ci mujj ab ju ki bëgg a nekk ab julit da koy nekk ci fameem kër gi jullite euh, jabar yi jullite xale yi jullite gis nga kër yi jullite fi mu nekk nii seytaane amu foofu yoon tey bari na jigéen ñoo xam ne dañuy togg mu des ñu wetti ca koñ ba ca roq kër ga gis nga ku jinne reer sa kër ñaari yoon nopp sab jeex képp ku bàyyi ba jinne reer sa kër ñaar yoon nopp sab jeex te bu nebee sab jeex ker yàlla mbokk yi ab julit daa wara a fonde foyer boo xam ne bii bu julite la tànn jigéen ju mën a sëy am doom yu jullite waaye fekk yow ci sa bopp nga jullite bu ñuy tànn jabar teg ko ci lislaam jabar ji bu ñu koy tànnal jëkkër teg ko ci lislaam mbokk yii ma doon wax mooy yi nga xam ne ku ko mel bu la neexee nga ne man ab julit laa sa gëm yàlla sa jaamu yàlla say jikko ak sa kër waaye bu ci mujj nag na nga gëm ne ëllëg ëllëgi lislaama gëm ne ëllëg ñu bari ci yéen ñu ngi seetaan Israël mook Hamas wala mook Palestine waaw ña nga ca de la ñu reyal Palestine kenn xamul nu mu toll waaye lu ñu toll lañu ñu reyal ñee tey du tax ñu dellu ginnaaw baax ñu daw yàlla ñu yàlla boole sàmm yàlla ñu yàlla boole aar yàlla ñu bokk fekk déwén te weesu ko yàlla yàlla def jàmm ci dëkk beeg ñu ko wër ñii ñu paree ne bés bi yàlla na yàlla def ci barke def ci tawfiq sutura ñi fi teew ak ñi fi teewut ñu ngi leen di jégalu baax a baax a baax di ñaan sutura di ñaan yàlla na yàlla defal seeni mbir defal suñuy mbir ci def ci sunuy poos dara salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Fini le stress. Que vous soyez jeune fonctionnaire, entrepreneur ou même immigré, le groupe Mac Building vous aide à réaliser vos rêves. Vous souhaitez acquérir un terrain, concevoir votre plan architectural, construire votre maison, trouver une équipe ouvrière spécialisée, équiper votre maison ou bureau, trouver des matériaux de construction, décorer votre intérieur ou même gérer les démarches administratives. Le groupe Mac Building est là pour vous accompagner du début jusqu'à la concrétisation de Pas de souci, le groupe MacBuilding vous donne la possibilité de payer en plusieurs échéances et de devenir propriétaire dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, contactez le 77 550 11 19 77 550 11 19. C'est Luc Teigakoipare. الذي أغناني أغنى yéen sama mbokki tapissier yi mbokki cordonnier yi yéen ñi bëgg bagaas yu baax yéen ñi di wër matériel bu dëgër am taar lu ngeen ci defar du gaaw a xar seen naqar nee fër kër gi xéewal waa kër Xaadimu Rasuul nekk fii ci Médina rue 25 angle 24 Modou Lay Diop et frère ñoo mën ci jaay bépp jumtukaay bu tapissier bi di soxla wala cordonnier dañuy jaay bépp xeetu toile eskay simili cuir velours LC meka ak bépp accessoire fauteuil dañuy jaay ay pieds ci ay modèles yu wuute qualité bu dëgër repose-tête sangal bande dorée bouton cristal appareil agrafe bal agrafe ba ci ay protocole école pompe am nañu ko fàttewuñu benn yoon ay nappe de table yu rafet lool ci qualité yu baax base auto mën ngeen koo amee fii ci kër ji xéwal base pente bépp dimension bu ngeen ci soxla ak qualité bu dëgër man ngeen ko fekk fii ci kër ji xéwal bokk yi woo leen ñu gaaw ci 76 330 55 10 ngeen laajte Modou Lay Diop wala 78 382 67 68 ngeen laajte Ibrahima Diop. gàngu naa ñu jaay lu baax ci njëg yu neex kana ca faax moo di kër gi xéwal waa kër Xaadimu Rasul Médina rue 25 angle 24 kër gi su suñu kër gi ñuy xéwaloo. youpi baby une grande bambinerie bambinerie bu mag a mag a mag a mag a mag lépp loo soxla pour sa bébé ah mbokk yi balaa bébé bee juddu nga jënd bu bébé bi juddoo nga jënd bu amee un an ñu defal la affaire bu amee deux ans nu xale bi màggee lépp la ñu am lépp loo soxla même pour yaayu bébé bi ñu ngi nekk rond point Jet d'eau à côté de la station Ola berceau youpla transat vêtements pour nouveau-né 100 pour cent coton cadeau de naissance paanu njëkk njëkke wala turandoo <laughs> le turandoo bay jënd di ko yóbbu nga xam ne turandoo ba am maanaa valise de maternité pour bébé et maman appelez au 77 243 70 70 77 243 70 70 youpi baby rond-point jet d'eau à côté de la station Ola la bambinerie de référence